tournée yooyu d' abord dañuy wax lan moo ko lan moo ko mbébat luy mbébat euh, lan moo ñu taxoon a jóg dañ koo def ay tournée yoo xamante ne mottali yéene lañ ko tuddee euh, profito ci tamit pour rencontrer population bi xool jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund. ñu nekk si contexte boo xamante tamit contexte su parrainage la tey bu nekkee ne dafa am ay loi yuñ teg notamment le parrainage mu nekk parrainage citoyen mun c'est-à-dire populaire mu nekk parrainage parlementaire bi ak forme bu mu munti nekk parrainage boobu mënoo koo def te demoo waxtaan ak askan wi donc tey bu nekkee ne loi daf ñoo tënk nekk nañu nañ dem uti parrainage parrainage boobu mënoo toog sa kër mu nekk il nga dem waxtaan ak yi dem ci biir ñu euh, tudd sa circonstance yooyu noonu lañ gis tey dem nañ fi Fatick ñu bloqué suñ caravane jaay mhm. ñu doole ne du ngeen jàll euh, ñu dem maatam tamit même scénario bi répété wu mais comme ñun ay ay ay ay ay ay démocrate lañ te tamit dañoo nekk ñoo xamante ne ay légaliste lañ ànd ak koo xamante ne ku mot kilifa la c'est-à-dire nekk di di puusante wala di xeex wala di dóoroo wala di def noonu lépp lu ñuy def rek dañ koy teg si yoon l'essentiel mooy objectif yi nga xamante ne fixé nañ ko rek ñu atteindre ko mais li ci gën a am solo mooy dem xool jafe-jafe askan bi parce que ñun suñ projet de société dafa nekk projet boo xamante ne nekkul da ñëw jékki def proposition mais il faut nga dem rencontrer citoyen citoyen sénégalais yi xool li nga xamante ne moom mooy seen problème à partir de problème boobu noonu nga xamante ne moom lañ am seen problème yooyu noonu yëpp boo ko jëlee ci loolu à parti de ça ngay mun a jël tënk ko mu nekk benn programme politique plus li nga xamante ne moo nekk contexte actuel bi ñu nekk bi jël li nga xamante ne mooy assise nationales yi contextualiser ko boole kook li nga xamante ne moom mooy problème mu population mais malheureusement bi ñu demee sa bi ñu demee bi nga xamante ne tey boo xoolee presque sur euh, quatorze régions presque def nañ huit presque def nañ huit régions mais souffrance la ñuy gis souffrance totale da ngay dem ay si dans le département de Linguère. dans le département souffrance lan nga tuddee souffrance totale souffrance mooy da ngay gis population boo xamante ne dañ koo abandonné tey mënuñoo euh, mënuñoo tey tey tey jii xalaat Sénégal fi mu toll 60 ans après indépendance. nga gis ay village yoo xamante ne amul courant kon électrification rural boobu noonu nga xamante ne ñoo ngi ñu ko doon santé di ñu ko sonal donc loolu dañ koo def d'une manière discriminatoire c'est ça la réalité loolu moo am da ngay dem ay dëkk yoo xamante ne dañ naan la ñoom amuñ courant amuñ ndox mu nekk ci 60 ans yi 40 ans yéen a ko jiite ah. moom laa lay expliquer c'est-à-dire euh, foofu laay ñëw moom moo tax tey ñu jàpp ne ñun candidat bi nga xamante ne moom lañ àndal muy le président Khalifa Babacar Sall. mu jugee ci rang yu parti socialiste. mu jógee ci ran yu parti socialiste mu xam démb fekkee tey ñu koy tuddee la synthèse yu régime yi nga xamante ne jaar na fi loolu moo ko taxaw a wàcc sur le sur le comment dirais sur le terrain pour xam li nga xam mooy jafe-jafe kii parce que responsabilité boobu noonu tey mënuñ koo jël ne responsabilité boobu noonu yëpp dañ koy jël incombré ko ci li nga xamante mooy régime socialiste parce que régime socialiste bi noonu ñëw état bu Sénégal état bu bees la tey mënoo ñëw nga ni ci plan infrastructure yëpp tey régime bi dina def loolu parce que tey boo xoolee état am na nu muy doxee d'abord il faut nga bâtir benn nation boo xam nation bu dëgër la tey boo gisee tey ay dialecte mun a am séeréer bi mun a tooñ tukulóor bi tukulóor bi mun a tooñ parce que Léopold Sédar Senghor da ko incarné woon donc bu ñëwee di constitué mu nekk benn état boo xam ne état bu bees la il faut nga teg ay li nga xam ne ay jamono yu dëgër yoo xamante ne loolu mooy répondre à ce que ñu mën a wax lii moo nekk état donc ci plan institutionnel am na yu bëri yoo xamante na ko donc man fi may wax mooy plan infrastructure yi nga xamante ne régime yi mujj ñoom seen responsabilité mu ngi ci même bu nekkee ne tey ñoo occulter responsabilité état yi fi jaar yëpp. donc souffrance boobu noonu nga xamante ne dem maa ngi fàtte am na benn village bu ñu dem boo xam ne presque ay une heure du matin lañ fa dugg bu ñu ñëwee ay xale yu am quatre ans ñoo doon nit ay torse ban village la village boobu. c' est dans le département boo xoolee. en matière d' infrastructure c' est dans le département de Linguère. en matière d' vous êtes quand même mal placé. Hmm. pour reprocher quoi que ce soit. à non je suis en train de vous relater je suis en train de vous relater bu bi ak bii ah. waaw moom laa la xam nga dama laaj situation par rapport à nos tournées. Hmm. donc je suis en train de faire la situation. donc bu ma leen faire situation ba par problème yi ma wax li mooy souffrance su sénégalais yooyu tey nee nga ma fan la gis nañ ko dans le département de Kébémer dans le département de Linguère dans le de Louga dans amul département bu ñu duggul boo xamante ni village yu gën a reculé problème yooyu noonu am na fa donc ñooñu noonu dañ leen fàtte beneen bi mooy dangay dem gis ay villages yoo xamante ni ba léegi si ay teen la ñuy rootee nga gis ay villages yoo xamante ne amuñ ay case de santé famille bu ñu pour ñu accoucher dañuy yëg charrette parce que amuñ ay moyens de transport yoon yi baaxul dañuy yëg charrette dem ba ci yeneen ba ci ba ci commune yu leen gën a jege pour mun a accoucher di si gis ay femmes yoo xamante ne dañuy avorter nga waxanteeg ay cultivateur ñu ne la boo xoolee ñoom matériel agricole yu ñu yor yi c'est des matériels agricoles yoo xamante ne yu archaïque qui date depuis presque soo xoolee ay 30 ans depuis Abdou Diouf parce que loolu lan mooy dëgg bi moo nekk tey politique bi nga xamante ne état war na ko def defu ko duñ leen subventionné si côté engrais dugg nañ si ay tool yoo xamante ne dañuy dugg ànd ak le président xool toolu gerte yi nu muy demee mais da ngay buddi gerte boo ko buddee da ngay gis taatu gerte bi ay set doomu gerte moo ci nekk bu ñu leen laajee lii lan mooy problème bi ñu ne parce que tey engrais bu ñu leen jox bi bu ñu leen war a subventionné du ñu leen jox engrais bu doy dañ leen da ngay ñëw ne ñëw leen jël si engrais nga ñëw ñu jox la benn sachet boo xam ne ay 2 kilos engrais moo ci nekk nga war ko def si si si si tool boo xamante ne tey loolu kon du mun am tey capacité pour tey tool boobu noonu engrais boobu du ko mun a doy ci beneen problème bi muy si secteur yoo dem muy agriculture muy pêche muy élevage élevage bi da ngay dégg ñu ne la tey insécurité dafa am parce que vol de bi ak yooyu noonu yëpp ak lépp loo xamante gars jéem na ci échec da cee am donc ñu ne ñun loolu noonu yëpp ñu gis ko mu nekk ay problème ñu xam ne problème yooyu noonu tamit soo xoolee véritable problème mu décentralisation la décentralisation bi nga xamante ne tey dañoo commencé depuis acte 1 ba tey ñu ngi ci acte décentralisation boobu dafa am problème moo tax ñun suñ pro suñ suñ suñ programme le président Khalifa Babacar Sall da ko cee boole mu ne tey jii nii li nga xamante ne moom mooy village yi pour nga développer il faut nga jàppale les commune parce que avec la communalisation intégrale tey commune d' arrondissement amatul commune d' arrondissement ay commune lañu nekkaan léegi ñu ne tey jii loolu pour nga def ko tey yow mënoo toog palais de la république nekk sa bureau nga ngay régler tey problème ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Médina Wandefa wala tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tey mbaamu mi si si ngin gi new tey il faut tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a jege population bi ñoo ñëw ñoom ñoo mën a taxaw population te loolu noonu moom moo nekkoon soo xoolee tey mobilu li nga xamante mooy décentralisation décentralisation tey mënoo koo wax te population bi jegewul administré bi mënul jege administration bi donc si côté décentralisation muy déconcentration ñu ne dinañ leen doole moo tax président Khalifa Ababacar Sall jël mu ne ci programme dina jël bu nekkee président de la république incha allah rabbi commune bu nekk dina la doter un milliard de francs CFA boo xamante ni ci budget Sénégal lay jël su jógee ko ci budget Sénégal dem ci communes yi nga xamante ñoom bu ñu koy def ci côté fonctionnement lay doon. d'accord donc loolu. Uh-huh. Mhm. c'est des c'est des c'est des c'est des de solution yoo xamante ne tey mu ngi ciy réfléchir di xool tey euh, gox goxaan yooyu noonu nan lañ leen di doolelee ba nga xamante ne situation bi ñu nekk précarité bi dinañ ci mun a génn.